ne dañu bëgg jaare ko ci njàngaan yi ngir jot ci seeni wayjur waaye njàngaan yooyu def ci am ñi nekk ci école bi ñuy tuddee école nasaraan waaye daf ci am ñoo xam ne ñi ngi ci daara yi kon lépp lu ñuy def nanu bàyyi xel imaam yi nanu bàyyi xel njiit kilifa diine yi ndax fii en ci Thiès bokk te yaakaar naa moo law ci Sénégal bari na loo xam ne soo ko bëggee def bëgg mu am fu mu jëm foog nga boole ci imaam yi foog nga boole ci kilifa diina yi te loolu yaakaar naa ni ñoom ñooy def saa su ne juróomi yoon par bis lu mu néew néew ñu dajee ak njaboot yépp ah, àjjuma bu jot ñu dajeek njaboot yépp jamonoy yi it yu ne ñu dajeek njaboot yépp te boo ko xoolee tamit ci suñu mbokku jàngu bi ñoom itam am nañu ay xeeti daje yoo xam ne yenn yi dimanche la yenn yeneen bis la yoo xam ne man nañu accéder ci nit ñi moo tax ba nu fi toogandee ak léegi ba léegi li ñuy def mooy chaque fois lépp lu ñuy def ñu nekk ca ak ñoom waaye aussi di jaarale ci ñoom mébét yooyu ñu am te mu war a jëm ci nit ñi ndax ñoom bu ñu waxee ak nit ñi xamal leen ni dañoo war a fay kubbal ak galab waaw ndax loolooy impôt taxe kubbal ak galab loolu dañ ko war a fay et loolu tey jii pour ku ko dugal ci bopp nit ñi ñoom kenn mënu leen ci waaw ñoom kenn mënu leen ci élève bi am na ci solo ngir yëgal waa këram. waaye kilifa diine yi maanaam tey jii kuñ ci woo nga dib taalibe ñun la ah addiye ne ni mu la waree ci ñun noonu la waree ci dëkk bi ndax dafa am loo xam daf la warloog dëkk bi ndax comme bu làmp amul nga jooy bu mbedd setul nga jooy bu leneen manqué nga jooy kon dafa jaadu nga xam ne lay defar loola jógewul ci benn poos lu dul sa bos ak ñi mel ne yow kon na kenn ku ci nekk lala la ca war nga def ko boo ko defee bu boobaa yow di nga am sañ-sañu nag ne lii dañ ma ko caa war a defal muy ñun muy ñi ne ci état bi suñu wàll mooy su ngeen dajalee seen alal ba cotiser ko ñun li ñu war mooy fexe ba yaxanal ko respecté ko jaarale ko ci yoon kenn du ci wuruj kenn def lu dul noonu waaye nag fay bi moom par la